et surtout est-ce que nous devons nous ñu ci hmm, bon d'abord hmm, il faut d'abord que nous reconnaître une chose que nous avons dem imposé euh, imposer pour être la première force politique de l'opposition euh, sénégalaise. Euh, coalition ba M. par rapport au résultat du l'élection des élections législatives c'est coalition Wallou, avec euh, comme tête de pont le Parti démocratique sénégalais maintenant Wallou, ñoom dafa am loo xam dañ ko xaatim déggoo ko wax ko Khalifa Sall je ne peux pas affirmer à à à tout point de vue que qu'il est le principal mais je dirais qu'il fait partie des géniteurs de la coalition yewi Askan Wi maintenant ñoom dañoo def ab charte charte bi mu ne euh, dañuy moytu lépp li nga xam mooy collusion avec l'adversaire euh, buñ ci dem itam à charte donc bi dialogue bi Khalifa Sall est entré en collision avec l'adversaire donc ñoom ñu euh, acte motif d'exclusion la conférence des leaders ñoo def ab communiqué bataaxal boo xam ne Sall euh, entité bi mi ngi fa dess la fa nekkoon si gënaaw bu ñu législative yi ñoo fa dess kenn lañ ci génn mudi di euh, taxawu Sénégal maintenant taxawu Sénégal position bi mu am est-ce que foofu lañuy def acte de trahison wala il a lan lu topp si euh, li ca xew mooy di acte de trahison mais je me dis encore une fois que Khalifa Sall bu mu demee si dialogue bi c'était au nom d'une survie survie politique parce que xëy na jàppoon na ni te gisoon nañu ni le combat politique pour nous réintégrer en tant qu'électeur pour qu'il puisse redevenir euh, euh, candidat mhm. déjà fait, pour nous ñu war le combat donc instinct de survie politique c'est sa dernière carte à jouer parce que le plafonnement est à 70 ans prochaine élection est chez du donc motivé pour nous, pour nous réintégrer Mm-hmm. Et on a tous entendu le discours qu'il a porté. Le discours qu'il a porté, c'est le discours bu ñuy wax ci mbedd bi mom lañuy wax ci gi wax ci communiqué ñuy Donc nous avons porté comme discours au même titre que Cheikh Bamba Dièye au même titre que l'honorable député Nafissatou Diallo au nom du Parti démocratique sénégalais au, même titre que Mamadou Diop Koura, je pense que sujets abordés, abordé ce sont les sujets yi nga xamné mom lañuy débat sur la place publique donc je me dis encore une fois liberté et indépendance bi mu am. Euh, sañ na mën a dem wuy ji buñ ko wowe comme ñeneen ñi nu ñu amé liberté ak indépendance baña a dem wuy ji buñ len wowe maintenant euh, lolu and na jafé jafé donc jafé a créé dafa créer une rupture de confiance surtout bu démé ce renouvellement renouvellement des bureau mi nga xam modi euh, bureau municipal de la ville de Dakar jëm sur le respect de la parité euh, Wa Pastef passer nañu ni effectivement bu ñuy Fall comme premier adjoint on aurait pu choisir une femme du Pastef pour me remplacer Abbas Fall au poste de premier adjoint euh, de la ville de Dakar donc lu xew Assemblée nationale ce n'est rien d'autre que le prolongement des difficultés yu xew ci diggante taxaw ak coalition et principalement Pastef ak la leen dal civil de Dakar donc amul rien de surprenant par rapport ak li xaw assemblée nationale. parce que buñ nous demee ba ñu ne Khalifa Sall invité tuñ ko réunions, woowatuñ ko ci réunion euh, Yewwi Askan tout le message jotatul dara loolu may wan ni effectivement la séparation est actée maintenant est-ce que ça donne raison à ceux-là qui ont quitté très tôt non je dis la politique a des réalités yoo xam ne souvent fay nek réalité yo xamné da fay gëna défar da fay gëna a comme amna ay réalité yu lay rattraper yo xamné amana da fay tas li nga xamné mo taxone ngeen bokk tas gog ngeen ni bokk nak ngeen bokk fa bokk ci li nga xamné moy les ingrédients euh, justement qui composent ce ce cocktail euh, hétérogène qu'est véritablement la politique et la manière de faire de faire la la politique maintenant ñi ca gënnon ñom am raison expliquer nañ ko ñom itam ñi nga bay seen waar si seen si seen wàll mais dans tous les cas coalition boo xam ne wax nañ ko ci seen charte élection bu jotee ñëppay dem wuti ji le nom reste par rapport ak yenn combat yu ñuy mëne mais dans dans l'absolu da ngay gis ni bu doon dañ koy jàpp ni coalition bi dafay rester homogène c'est-à-dire que la coalition da doon liggéey sur une candidature bien vrai que man j'ai toujours euh, dit que il fallait éviter une inflation de candidature mmh. et aller vers des candidatures limitées par rapport ak eu pour ne pas véritablement donner l'impression d'une dislocation des voix yi nga au local engrangé au niveau des élections législatives mais l'un dans l'autre je man duma un acte de trahison qui xew na dañuy may réalité politique par rapport à ce ñi nak bir ba euh, la masse la plus importante la masse la plus essentielle par rapport à une seule entité encore une fois l'entité l'organisation Yewi continue, l'organisation Yewi a un problème avec une seule entité. Une seule. Parce que tu as dit, que ça a un grand parti de Yewi. nga jëkk dit ñu la parti ba de na ok là on pourra parler véritablement d'implosion de la coalition mais euh, charte bi mo leen ko sommes ñom dañuy and local and législative waaye euh, le bu joté ku nekk euh, bu la neexee nga dem wuti sa pour xol ndaxam sénégalais dañu lo jox parrainage ba que nekk candidat ndaxam dañu la votel pour nga mën yegg fi nga mais réalité pour réalité je dis encore une fois ku nekk mi ngi poser ay te itam les déclarations de Barthélemy itamit la rencontre ak Macky Sall yooyu yëpp itam dafa créer une rupture de confiance euh, entre li nga xamné modi taxaw ak li nga xamné modi organisation plateforme bi regrouper ay partis politiques ba ñu ko les li nga xamné modi coalition. très bien euh, Cheikh Omar sur la question. waaw euh, xam nga Ablaye moom dafa dafa xarañ. def na campagne le décor et le débat parce que politique aussi euh, jeu d'échec hein, comme on dit chacun ses coups pour coup euh, et l'IAM assemblée c'est le prolongement de cette situation bi nga commencé voilà que bu ñu avez askan Ousmane Sonko moi je considère que yeewi askan Ousmane Sonko a été une locomotive hein. euh, Khalifa Sal fait partie des des des géniteurs de de yeewi euh, tout comme nous avons un apport considérable cela mm-hmm. euh, a valu tey ci élection législative quand on a fait l'intercoalition, à ce Askan Wi ak euh, wallou parce que ànduñu a une élection locale yi y a un département a gagné comme le même Pikine mais nous ñu faire intercoalition j'avais dit que c'est une stratégie pour ça a pesé sur la balance Nous avons 80 députés à l'assemblée nationale le message que les Sénégalais attendaient, c'est nous une assemblée de rupture. Une assemblée où l'opposition serait soudée, où l'opposition ferait face au régime pour régler des questions des Sénégalais, n'est-ce pas mm-hmm. Ma déception, elle est là parce que pour moi, Oumindour, Binfi Toudoussang, député, ignorant un pas de écharpe, dem buntu sen pour régler problème sénégalais. Sur c'est sur des positionnements ou sur des questions électorales ou des questions politiques. C'est normal parce que tous les députés aussi Nidjogé, qui le politique donc le politique euh, dialogue bi Amé Abdoulaye man principe là, hmm. am dialogue am droit nga dem nga dialogue am na tamit dialogue et c'est son droit le plus absolu n'est-ce pas hmm. Après, on a eu par presse interposée la sortie de Ousmane Sonko. Automatiquement, c'est la sortie de Barthélémy Diaz. Après, quand Khalifa Sall est allé le programme pour meeting bi de ko même si fait que amna est responsable eu askan wi union à la rescousse pour calmer le jeu, calmer les ardeurs. Et moi, j'avais dit ni nga xamni ñom ñoy responsable yi wute na ak sympathisant bi ak militant bi mais en politique quand tu poses des actes aussi dafa am ay conséquences yo xamni ni da ciy am té dang koy dang koy assumer du dëgg yamuñu Fofu. bi fi tégué loi d'amnistie le juin ñu ko jallalé am na ñu bokk ci Pastef ñu démon attaquer décision bobu mm. mais sinon dernière information. cher Omar Ousmane Sonko. Euh, non non euh, l'agent judiciaire de l'État euh, dafa dafa désister si li nga a un acte de récusation momo déposé won contre Ousmane Sonko selon les informations reçues en ah, attendant de vérifier ça veut euh, dire que dootul euh, euh, waaw toppati boobu les boobu des décisions pour récuser le juge Sabassi voilà ça c'est une information. waaw amna tam benen xibar ma jot legui envoyé on nak ko sax Ousmane Sonko dafa décidé def observer grève de la faim. encore une fois. Bon, tamit bon on est en train. c'est sur sa page officielle. jusqu'ici qu'on était euh, il était à l'hôpital là. depuis 72 heures. tu peux pas recevoir comme ça d'habitude euh, depuis lors. Euh, les infos parle à travers. bien sûr à travers sa page officielle. Mm. lañ ko bind léegi léegi. mais on va recouper ça fait moins de 15 on va recouper pour voir si c'est avéré ou pas. manifester sa solidarité. très bien au profit et cetera Euh, fan laa nekkati woon sama fil sax <laughs> Ablaye léegi delloowaat ma man gannaaw sax bàyyi ma ñëwaat directement donc li ma la bëggoon wax. li xew ci géopolitique bi foofu moom moo ci am. Ah, xaaf ak yeewi. bi amnistie xalifa waxoon na l'essentiel naa bokk. te dama dem si benn restaurant ma ne maire ma maire na ma ceebu jën am na yaasa am na maaf mel na ko maire man indi rek mu ne ma ah da ngaa def comme xalifa l'essentiel na añ xalifa moom quelque soit alpha na bokk. intérêt bu son intérêt la dem lijjanti sama bop wala geul du bañ naa la xalifa bi boobu la teg ñele aussi bi ñu du defee seen dañu dem cour suprême pour attaquer décision bobu que le fait que ñu réhabiliter Khalifa Sall ak Karim donc c'est un coup politique fi tamit ci composition bureau bi il faut que nit ñi xam ni que dafa am limu député boo xam ni boo ko amee da ngay am ab groupe parlementaire dégg nga taxawu li ñu am ci député motul groupe parlementaire mais bu ñu bokkee ci ab groupe parlementaire nombre de députés yi ñuy am bu ñuy séddale cër yi dañ leen ci jox quota léegi nag comme juboo woon nañ ci bureau ba la passé amoon nañ ci ay cër yu am solo questeur assemblée bi deuxième questeur bi ku jégi lañ ko joxoon am na yeneen poste vice président yi amoon nañ ko secrétaire élu amoon nañ ko du dëgg mais bii pas seen répercussion boobu moo tax ñoom bi ñuy def seen réunion boolewuñ ci ñële dañ leen a seppi et c' est normal parce que Yewwi def na communiqué nag génnee na Khalifa Sall biir Yewwi du dëgg Khalifa tontu ne Yewwi la bokk kenn du ko si génne ñii bi ñuy def seen kuréel toog nañ seen biir lu ñu waroon waxtaane nasandoo ko ci seen biir ñee jàpp nañ ni dañ leen di liquider politiquement pour ñu bañ a bokk ñoom ñu fayu ne comme dañ ñoo nar a liquider xañ ñu ñun tamit comme dañ ñuy xañ nañ leen xañaale léegi kan moo ci perte opposition moo perte fi ñu waroon a toog ci bureau yooyu léegi benn boo ko yaakaar récupérer mais poste yooyu donc en quelque sorte pour moi s'il y a une trahison ils ont trahi le pacte qui les lie aux Sénégalais les Sénégalais ont délivré un message pour leur dire opposition sénégalaise soyez ensemble unissez-vous oubliez vos personnes oubliez vos calculs politiques soyez un pour que ngeen am cette force dynamique maintenant su fekkee ni dañ tasaare seen doole ils vont faire le jeu du pouvoir. Hmm. maintenant benen jàngat bi nga xamni mom la ci japp pour man euh, ci ci ci ci jeu politique bi malheureusement c'est maro crocodile euh, ku fi tok na la sama dom nday en politique ndax la jekkul rek. Hmm. bopam lay lijjanti wala intérêt xam nga quand j'ai écouté Barthélémy mu wax ma ne schéma politique rek la fi wax wax fi leneen lim mu def na ko nday waa ji nañu bàyyi nañu. jàppoon na Karim Baye mais yow da ngay jàpp léegi dangay ngay bàyyi si li nga def yëpp nga ñëw nga jàppale ñu jàppale grand bi soo jàppalee grand bi grand bi def le premier ministre comprendre hmm. réel politique quoi cest à mooy ñoom Barth amul benn ambition lu dul fal Khalifa du hmm. dëgg hmm. ma Malick Gakou tey Ahmed Aïdara lu mu am Malick Gakou ko gënal xaw ma seen pacte la xaw ma lan la du dëgg Maintenant, sur la scène politique, les coups se donnent et quand tu donnes un coup aussi, tu reçois un coup. Mm. Donc là, là, euh, malheureusement, il devait faire preuve de réalisme politique. Surtout que tu moment pour moi, Ousmane Sonko n'a pas besoin que la machine de Yévi ait des difficultés mën a am ay gis-gis yu woroo approches parce que dañu une alliance électorale c'est une alliance électorale dañu ne ñoom ñooy ànd ci local Nous un ci législative présidentielle nous nous nañ dem ñu roote dem est-ce que ña fa nekk ñëpp am nañ dayo bo pour dem roti est-ce que ñooñu ñep buñ ñu tasaaroowee est-ce que dinañ am doole bo maintenant politique aussi les contextes da fay changer am na ñoo xam ci ndjelbel lañ waxon daloon nañ fi ci Khalifa Sall mais Khalifa Sall moy buum moy buum moy dogal du dëgg hmm. tay ñi doon wax Khalifa Sall moy buum moy boumi mi te Khalifa Sall taxon ñu génn ay la yéwén bu ñu ba génnee Khalifa Sall ñooñu dinañ ne ñun am nañ dëgg parce que gisoon nañ lii wala waxoon nañ ko du dëgg donc pour man euh, c'est c'est un jeu politique qui est très dynamique où chacun essaie de tirer son épingle du jeu et maintenant dans cette bataille d'opinion euh, tu boo dégloo waa Khalifa Sall lañ lay wax ñun waruñu kenn dañ ñoo war soo dégloo waa Pastef dañuy jàpp ni Khalifa Sall moom moo leen war et malheureusement euh, waxuma la àdduna ay wari neen la mais politique moom ay wari neen la. très bien président Lamine Gueye bon man comme comme. yeewi yi yeewi. pour man en tout cas mbiri mbiri ma teeri ci assemblée nationale. divorce bi muy gën a c'est du pour man. Mm-hmm. vraiment yeewi aussi yi euh, def na performance boo xam ne warul woon nii. parce que aussi boo dilaté histoire du Sénégal. déjà te dafa neexoon le président je me rappelle je me rappelle que bi bi président Bougane di cadre kàddu yu mu ci coalition bi. Eh? et pourtant ci jamono Jojo, il était traité euh, traité de tous les noms. Et ah, maintenant bon est-ce que l'avenir euh,